CSIP compagnie industrielle pour PVC moo ànd ak yenn ci wéeru koor gi yépp yi di leen ñaanal kooru jàmm bismillahi Rahmanir Rahim bismillahi Rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي يتدي نونغي لين دي نيو دي لين زيارة تي ويرو ماغوي دي نيان يالله سبحانه وتعالى مميدو ني نيو كو تامبلي nu yeggale ko ak jàmm ñu ñaan ko lépp lu ñu ci jaamu ñaan ko ci yal na yàlla nangul ñu ko kam niñ leen ko waxe woon weeru koor mooy école bu mag bi nga xam ni ku ci génn da nga am diplôme bu ñuy wax ragal yàlla waaye ragal yàlla googu pour nga mën koo am da ngay bàyyi xel ni koor du bàyyi lekk rek bàyyi naan waaye soo wooree danga war a bàyyi caaxaan danga war a bàyyi lépp loo xam ni waxu mbóosóor la waaye dangay bàyyi caaxaan ci wax bàyyi ko ci jëf ak jëflante soo wooree danga war a moytandiku jëw danga war a moytandiku saaga bépp kàddu goo xam ni kàddu safaan la danga ko war a moytandiku danga war a fere war a freiner sa làmmiñ waaye danga war a freiner sa bët ndax koor goo xam ni saaga dëkkul jëw dëkkul wax bu ñaaw dakkul taxul ñu naan koor moo tax yonente bi wax ni rubba saaimin laysa fi sawmihi illa al juuca wal atash bari na ko woor suba ba ngoon jot te amul ca kooram googa lu dul mar ak xiif boobu nag yàlla nañ ci yàlla musal kon ñu jox leen naafil ak tey jii di alxamis ñu ni sopp nañu ko julli ñeenti ràkka ràkk bu ci nekk dangay jàng fatiha jàng inna anzalnaahu fi laylatil qadr juróom ñaari yoon jàng qul ayyuhal kaafiruuna juróom ñaari yoon jàng suuratul ikhlaas juróom ñaari yoon soo sëlmalee nga def laa xawla wala quwwata illa billahi al aliyi juróom ñaar fukki yoon def salaatu ala nabi juróom-ñaar fukki yoon soo ko defee jéggal nañ la say bàkkaar soo ko defee yàlla dina la musal ci balaa musal la ci fitna musal la ci xiif waaye musal la ci ràggi yal na yàlla defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa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 خلق الإنسان من علق